salaamaaleykum ñu jox oustaz ñu dalal ko fale tafaddal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru màgg wi nu nekk muy weeru koor ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala suñuy jaamu mu néew mu bari yal nañ ko yàlla nangul lépp lu ñu tarxiis yal nañu yàlla jéggal ginnaaw loolu ñu leen di nuyu di nuyu mbokk jullit yépp di ci jiital ki nekk sabab yi ñëw tey fii ci gox bi ci barab bi ngir ziyaare mbokk yi ak fàttalante ak ñoom ci tomb bi nga xam ne moom mooy diine tomb bi nga xam ne tey su diine ji melee nii mooy tomb bi moo leerul tomb bi nga xam ne tey jullit ñi fàtte nañ ko te moo taxoon yàlla bind leen tomb bi nga xam ne tey lu jar boroom xam-xam yi delluwaat fàttaliwaat ko xeet wi ndax ñu sonn ko ndax ku ko amul doo dugg aljanna te lépp luy tere nit dugg aljanna nit ki war na ko xam balaa muy dee képp ku dee ci kaw suuf yóbbaale woo tawxiid doo dugg aljanna tawxiid mbokk yi dafa yitteel lan moo tax mooy awalu daawati rusul yonent yi bi leen yàlla yónnee xadis ñëw buy wax ne am na ci ñoom cent vingt quatre mille ñoom ñépp lan mooy seen mission mooy na nit ñi am tawxid tawxid mooy nañu kennal yàlla loolu mooy tawxid léeg-léeg nga dégg ñu ne tawxid comme baat bi arab la ñu war ko wax nit ñi pour ñu xam lan mooy tawxiid mooy pas-pas la boo xam ne nit daf koy fas ci yàlla tabaraka wa taala ngëm-ngëm la bu nit di gëm fan la jëme ngëm-ngëm ngoogu ci yàlla lan lay gëm ne yàlla kenn la lan lay gëm ne yàlla boroom la moo moom lépp rabbu kulli shay wa malikuhu yàllaay boroom lépp moo moom lépp moom kenn nag amul keneen kuy boroom wala ngay ku moom koo fi dégg mu ne mbir mi maa ko moom may ko fukki fan léegi mu dee ba ko fi xataa sa jabar xataa sa borom kër boo yàggee woo di wax diw mi nangam diw nangam léegi nga faatu ay fan keneen ñëw kon moom moo ko yàlla nag mooy boroom rabb su njàngee qul a'udhu bi rabbin nas yàlla dafa boole ñett yoo xam ne moo ko moom yuy wane ne moom dong la mooy malikin nas rabbin nas malikin nas ilahin nas rabbun nas mooy lan yàlla nee na maay borom nit ñi malikin nas maay buuru nit ñi ilahin nas maay yàllaay nit ñi ñett yi yàlla rek la amul keneen te pourtant gis nga saar bi ñun ñëpp ñu ngi koy jàng ñëpp mokkal nañ ko waaye jubluwaayam ak saar bi li mu ëmb ak njëlbeenu aaya yooyu li ñuy wax loolu la nit ñi xamul yàlla rabbu kulli shay lépp yàlla mooy tabaraka wa taala moo ko moom mooy rabb wa huwa wahdahu almuttasifu bi kulli sifati alkamali wa munazzahun an kulli sifati naqs moom yàlla moomu moom lépp nekk buuru lépp suñ koy melal di ko jox ay melokaan dañuy fekk moom kenn moom kot mu yor melokaan yoo xam ne ku dul moom doo ko yor melokaan yu mat melokaan yu set melokaan yu laab yu amul benn gàkk-gàkk wala manqué-manqué wala sikk-sikk moom yàlla tabaraka wa taala munazzahun an kulli sifati naqs moom yàlla danañ fekk muy ku ñuy setal ci jëpp bépp melokaan boo xam ne dafa manqué moo tax su nit ñi jëlee ay mbindeef di leen jaawaleeg yàlla dañuy fekk na ñooñu dañoo juum ki nga jël naan ko yow yàlla nga dangaa dangaa juum rek boo xoolee léegi léegi mu dee boo xoolee léegi am lu ko dal ci yaramam muy lu manqué mu feebar wala mu nelaw wala muy ko am soxna wala muy ko am doom te yii yëpp melokaanu manqué la kuy takk soxna dangaa manqué kuy am doom dangaa manqué kuy nelaw da ngaa manqué kuy xiif da ngaa manqué kuy feebar da ngaa manqué moo tax yàlla tabaraka wa taala munazzahun an kulli sifatin naqs bi gaa yi ne Isa yàlla la yaayam yàlla la xam nga yàlla lan la ko weddee nekkul foofu naan leen non kii du yàlla daf leen ne Isa ak yaayam dañuy lekk ku lekk ba suur 24 heures ku xëd ku xëddoon biig diggante bi nga xëddeeg léegi dugg nga fi benn néeg bu tudd alxalaa jël nga fi audience dugg ci néeg boo xam ne yow doo nga yaa fa dugg bi ngay dugg waxoo kenn gunge ma te ba nga fa duggee da ngaa tëj bunt bi loolu nga fay def mooy wane ne yow doo yàlla moo tax bi yàlla ne biñ ne Isa yàlla la yàlla mun leen ndeyam Isa day lekk yaayam di lekk kaana yaakulaani taam lekk nag ku nekk xam nga bu reesee après fu muy mujj ku mel noonu mënul nekk yàlla moom yàlla wa annahu wahdahu almustahiqu lil ibada yàlla kott yàlla kenn moo yeyoo jaamu moo ko moom keneen wala leneen yeyoowul jaamu moomu ko loolu moo tax yonent yi bi leen yàlla yónnee awalu daawati rusul mu nekk première mission lan mooy seen mission ñoom yonent yi mooy woot nit ñi ci kennal yàlla yàlla dañ ko war a kennal ndax mooy ahad yàlla amul moroom léeg-léeg nga dégg ñu jay nit ne amul moroom déedéet am na moroom kay moo kuy mbindeef rek am nga moroom ki amul moroom mooy kenn mooy yàlla loolu wax la rek diw amul moroom aha kay xanaa du mbindeef xanaa du nit ki amul moroom mooy allahu tabaraka wa taala mooy kot moom la gaa yi naan càppaa coli mooy ki amul moroom te lépp mooy boroomam te ku mu doon mooy sa boroom loolu dafa war a leer ci ñun loolu mooy tawxid ñaareel bi mooy tawxid awalu manazilu tariq ila allahi tabaraka wa taala ku bëgg a dem ci yàlla benn yoon dong nga mën a jaar ci dem ci yàlla mooy yoonu tawxid beneen yoon boo jaar yoon boobu dafa tëju doo yegg mbokk yi ci yàlla su fekkente ne da ngeen a bëgg a egg ci yàlla benn yoon moo leen di eggloo ci yàlla tabaraka wa taala mooy tawxid wa awalu maqaamin yaqumu fihi saalik ila allahi azza wa jal mbokk yi yoon wi nga xam ne wala taxawaay bi nga xam ne awalu maqaamin yaqumu fihi saalik première yoon wala première njëlbeen bu nit di jaar wala mu ciy taxaw bëgg a jëm ci yàlla amul beneen mbokk yi amul benn yoon bu nit war a dem ci yàlla tabaraka wa taala budul yoonu tawxid amul beneen yoon loolu moo tax danañu jàng danañu lim ay yonent yoo xam ne ñoom ñëpp bi ñu ñëwee lan la ñu wax mooy benn baat ku ci njëkk mooy jëlal nuux yàlla mu ne laqad arsalna nuuhan ila qawmihi fa qaala ya qawmi maza ibudu llah ma lakum min ilahin gayru nuux bi mu ñëwee lan la wax nit ñi ko yàlla yónni woon nuux woote na junni at yu manqué juróom fukk ci lan la woote moom nuux mooy jaamu leen yàlla amu leen benn buur bu dul moom nuux loolu la wax kan moo ci tegu huud alayhi salaam huud bi mu ñëwee lan la wax ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru yéen samay mbokk jaamu leen yàlla ngeen yëg ne amu leen benn buur bu dul moom nuux woote na ci huud woote na ci saalix woote na ci saalix mooy troisième position nee na ibudullaha ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla amu leen benn buur bu ngeen war a jaamu ku dul yàlla kan moo ci tegu soayibu soayibu bu mu ñëwee lu mu wax ibudullaha ma lakum min ilahin gayru yàlla ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasul limaza limaza arsaltahum ya rab an ibudu llaha wajtanibu taaxut yónni naa ci bépp xeet yónni naa fa yonent xeet boo gis yàlla yónni na fa yonent wa in min umma illa xala fiha nazir amul benn xeet bu musa am ci kaw suuf lu dul yàlla yónni na fa benn yonent pour lan pour nit ñi mën a jaamu yàlla ndeke ndax nit ñi mën a kennal yàlla mën ko wéetal bañ ko bokkaale mbokk yi ci yàlla borom bi tabaraka wa taala ba mu waxee ci yonent yëpp ginnaaw ba mu leen limee kenn par kenn mu tënk aaya bii bu nekk ci suratul anbiya aaye 25 mu ne yonent yépp maa leen yónni xeet bu nekk yónni naa fa yonent yonent yàlla muhammad mi mu mujjee yónni bi mu ñëwee lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne umirtu an uqaatila annaasa حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلا ما جوخ نديغل من يوننت يلا محمد نا خيخ اك جام ñi képp ku bañ a wax la ilaha illallah naa tuur sa deret kon ndeke mbokk yi tawhid kennal yàlla du lu ndaw kennal yàlla ndeke mooy diine xoola ku toll ne muhammad yàlla tabaraka wa taala jox ko ndigal ne ko jëlal jaasi képp ku ma wañ a wéetal tuural deretam loolu moo tax ñu war ko jàng ñu war koo xam mu bañal mu mu leer sunu bopp ne yàlla rek tabaraka wa taala mooy buur bi ñu war a jaamu loolu ñu naan jaamu ci ay xeetam ci ay façon ci màggal ak bëgg ak toroxlul ak suufe suufelu yàlla rek moo ko moom kenn warul suufe suufelu ci kanamu mbindeef kenn warul rëy rëylu ci kanamu mbindeef kenn warul toroxlu ci kanamu mbindeef kenn warul màggal doomu aadama bay yeggal ko place bu toll ne place su yàlla tabaraka wa taala tey nag waxtaane tomb bu mel nii day xat day metti lu tax parce que opération la kenn musul gis opération bu sedd nit day feebar ñóbbu ko hôpital médecin yi wër ko càmbar yaram bi yëpp daa di woo ay mbokkam ne kii feebar baa ngi ci biir bi pour mu wér foog ngeen bàyyi ñu xotti biir bi wëlbati butit yi bu amee luñ ci war a dagg ñu dagg ko bu amee fu ñu war a xar ñu xar bu añee bu amee fu ñu war a xotti ñu xotti nga dégg mbokk yi ne waaw waaw ñun koy liñ ko fi indee mooy mu wér lu ngeen def ba mu wér rek ñun d'accord nañu mbokk yi gis ngeen ñun pour ñu wér foog ñu nangu sunu xol yi ñu xotti ko xotti sunu dënn yi xotti sunu xol yi génn ci lu dul yàlla tabaraka wa taala suñu nanguwul ñu xotti sunu dënn yi xotti sunu xol yi génne xol yi xar ko génne lu dul yàlla raxas ba mu set dugal ci yàlla denc ko ci biir dënn yi du nu wér loolu moo tax nga gis jullit bu nekk bu bu nekk ci biir jàkka ji fekk ndigg li béjjën mi ngi ci tukulóor yi nee nañ pël yi nee nañ allah du sina nafanno ummataa koye hoore joomum allah du so tawino ina nafa ummataa koye hoore joomum béjjën bu fekkoon ne dina jëriñ du jóge ci bopp borom moo tax jullit du takk béjjën jullit du takk lam jullit du takk xaaw jullit du takk petaaw jullit du takk photo jullit du takk xërëm jullit du sangu ci ay xamb jullit du sangoo deret jullit du sangoo sàngara waxuma laak mu koy naan suñu nanguwul ñu xotti suñu dënn yi génne ci lu dul yàlla dugal yàlla kese du ñu wér du ñu nekk ay jullit moo tax mu nekk lu métti opération la keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee biir Màkka daan ne jaamu leen yàlla rek gars yi dañoo taxaw ne ko yée ajaala al alihata ilahan wahid inna haza la shay'un ujab ma sami'na haza fi abaina al awwalin dangaa bëgg a def téeméeri yàlla ak fukk ak ñett ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett nga bëgg a def benn yàlla loolu de mbir mu yéeme la mbir mu doy waar la ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett yow nga bëgg a ñëw ne kenn la ñeneen ñëpp kenn waru leen topp inna hada la shay'un ujaab lii de mbir mu doy waar la ñun de li musuñu ko dégg sunu baay yi fi nekkoon bu njëkk sax musuñu ko wax yow Muhammad nga bëgg a judd fii démb ñëw naan ñu yàlla kenn la mu ne leen kenn la de waaye xam nga ñooñu lu taxoon ñu rëcc dañoo nangu Muhammad xar seen xol yi génne seen dënn yi génn xar dënn yi génne xol yi xotti ko raxas ko ba mu set lëlëb yëlëb li dul yàlla lépp ba mu set mu dugal ci yàlla delloo ci dënn yi moo tax ñoom ñu daal di wér xoolal ñun léeg-léeg ngay dox ba ci yàgg rek nga ñëw ci sëlëbe yoon nga fekk fa ñu teg fa juróom-ñaari nen juróom-ñaari sondel juróom-ñaari guro juróom-ñaari puso juróom-ñaari mètre percal nga gis nit ñi di ko wiiri nit ñi di wiiri kenn du ko nangoo laal ay xale bu repp ba laal ko yaayam géej la koy yóbbu sangi ko tey kenn ci ñun bu yowoon ci buntu bitigam mbaa taabal bi muy jaayee mu fekk fa ñu teg fa ñetti nen ci bis boobu du lal xam nga fu mu jëm bis boobu du ubbi bitig bi la ilaha illallah wala gars yi dañ maa jógal fekk foofu xam nga lu waroon ci yow nen bi waxal bismillah rek tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah rek nga ut sa gaz ut sa marmet rek tëmbal ko ci yokk gaz bi nga may ko cinq minutes nga xool ndax nen mën na dara yàlla nag buñ la jegal jimboog soble fekk heure ndogu jot ah imam bari di nga xam ne nen mënul dara lor ak njëriñ du bàyyi ko ci kudul yàlla yàlla wax na wa ma hum bi daarina bihi min ahad illa bi iznillah loolu moo tax tawhid nit ñi dañ koo manqué xoolal nit ñi rek ni ñu nekkee ay jullit fi mu nekk ni dëkk bi yëpp a ngi woor mais tawhid amul yii ma wax yëpp gis ngeen ñu koy def ci dëkk bi ñaata ci ñun tey boo leen doon palpe ndé- ndigg yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di nga fa fekk ay gàllaat yoo xam ne sa yaram day daw te jullit xam ngeen jullit mooy ku jox boppam yàlla waaye bëgg a jox sa bopp yàlla ba bëgg a jox sa bopp ginaar gi bëgg a jox sa bopp yàlla bëgg a jox sa bopp guy gi bëgg a ba jox sa bopp yàlla jox sa bopp doomu aadama mënul nekk yàlla rek keneen bokkul bi ngay bi la yàlla di bind kan moo ko fekkee bi la sa yaay ëmbee juddu jot nga war a juddu ndaw si dawee ci kër gi dem ci hôpital ba docteur yi sax yàlla daneen liir bi neel tekk ci biir ma xool man la wala docteur bi la xam nga bu malade bi yegsee lan la docteur yi di wax kii de mat bi jotagul nañ ko delloo yàlla ne liir bi neel tekk ci biir ndeysaan nga dégg yaay ji ëmb naan yaa latif yaa latif lay woore kan mooy yaa latif kan la nga dégg bàyyi ji ndeysaan taxaw fële naan yaa latif mbokk yi ndaw si bàyyee ko ñu ngi naan yaa latif kuy kooku keroog lépp la ñuy fàtte yàlla nee na maay toog ba mu neex ma ma joxoñ liir bi ci biir fi mu nekk ne ko uxruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud liir bi daal di génn bi mu juddoo ba pare yàlla ne xool leen fi mu jaar summa sabila yasarahu maa yombal yoon bi xam ngeen ne foofu doomu aadama xaju fa maa yombal yoon bi ndax doomu aadama jaar foofu moo tax ñu war a xam kan mooy yàlla loolu moo nu manqué dañoo xam Sénégal dañoo xamul yàlla dañoo nekk ay jullit ba pare xamunu yàlla loolu moo tax ngay gis lu nekk ci façon jullit ci façon jaamu yàlla ay nit di ko def yàlla kese lañ xamul léeg-léeg sax nga dégg ñu ne nit kii kii da bu yeboo ngeen bàyyi ko ndax yàlla rek la gëm ab dof la eh kii ngay waxal kii bu yeboo nga bañ a yàq sa wax ndax li ngay wax du ko def ndax moom yàlla dong la gëm ab dof la soo tollul foofu nag gëmagoo yàlla mbokk yi tawxiid wa annahu wahdahu moom yàlla subhanahu wa taala almustahiq lil ibada wa taa wa annahu wahdahu almuttasif bi kulli sifat aljalali walkamal walazama su fekkee mbir mu jëm ci yàlla tabaraka wa taala la danañu fekk ne yàlla nit du mun a nekk jullit lu dul muy kennal yàlla rek yàlla rek lu dul muy topp yàlla te yàlla rek dara du ci bokk dara léeg-léeg nga dégg ku ñaan ci biir jàkka ñaan ñaan ñaan ba ñaan gi war a jeex mu ne bu neexee yàlla ak diw ñaan bi yàqu na ndax diw moomu amul lu ko ciy neex ba ñaan gi am ndax li ñuy ñaan diw moomu ko yàlla moo ko moom kon lu ci tey sa jabar bu toggoon ndogg bi ba nga war a ndogg mu daan ne nañu ndogg daal di wax sa benn turu dëkkandoo nañu ndogg ci sama turu mu ne turu diw ah teew yaa joxe dépasse bi da lay tëye ci loxo bi ne ko waaw kuy diw mu ne la xanaa sunu dëkkandoo bi ki ñu jàkkaarloo néeg nii nga ne ko waaw lu tax nga wax ko dina la tontu wala du la tontu keroog ay kurpañ keroog doo ndogu ay kurpañ ñooy jóg gis ngeen yàlla moom rek yàlla dafa fiir gis ngeen tribunal bi gën a rëy diggante yàlla ak jaam ñi ëllëg xam ngeen tribunal boobu lan moo ko waral yonent bi nee na yàlla nee na axluqu wa yubadu xayri man yàlla maa bind ñu jaamu keneen wa arzuqu ma wërsëgale wa yuskaru siwaaya man yàlla may wërsëgale ñu sant keneen man yàlla ma bind ñu jaamu keneen ma wërsëgale ñu sant keneen loolu moo tax ñu war a bàyyi xel suñu bopp ñu xam ne yàlla mooy yàlla keneen ku dul yàlla mbindeef nga in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmani abda yàlla nee na ku mu mën a doon ci kaw asamaan wala ci suuf sooy dikk ci yàlla jaam rek ngay doon jaam amoo beneen garaat jaam rek loo nekk malaaka bu bu màgg wala nga nekk yonent bu yàlla yónni munoo am garaat ci kanamu yàlla tabaraka wa taala budul jaam man yàlla maa bind ñu jaamu keneen man yàlla ma wërsëgale ñu sant keneen moo tax di nga dégg di nga dégg ci rajo yi ñu sant ba sonn mais doo dégg ñu ne ñu ngi sant yàlla xoola ku toll na yonent bi yàlla yónni ko ne ko jëlal jaasi umirtu an uqaatila nnaas mu ne yàllaa ma jox ndigal naa xeex ak nit ñi hatta yashhadu an la ilaha illa allah ba ñu kennal yàlla tabaraka wa taala mu ne bu ñu kennalee yàlla seen deret seen alal ak seen der ñoŋ na kenn dootuma tur dootuma tur seen deret illa bi haqqil islam ndeke mbokk yi tàmbale tabax pas-pas boobu muy pas-pasu kennal yàlla yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam bi mu nee cëpp màkka yàlla yónni ko muy woote li mu njëkk a def mooy fexe nit ñi xam yàlla xam ngeen ne baat boobu ak tabax tabax boobu yonent bi ñaata at la ci def fukki at ak ñett yonent bi di tabax pas pas pour nit ñi nañu xam yàlla rek fukki at ak ñett ñun lan mooy sunu problème tey mooy dañoo nekk ay jullit te jànguñu pas pas boobu kenn suuxatu ko ci ñun xale bi buñ ko ëmbee ci biiru yaayam la yaayam commencé bokkaale di takk ay béjjën di takk ay galañ di takk ay lam di takk ay kànnaar pour lan pour liir bi mucc bañ ko ëmbee laa wax de foofu sax dafa sori waaye bal bi ñuy takk yaayam muy sëy si dafa dem ba ci garab ga sangu ñu doog koo muur mu sëy wala dañ ko yóbbu bois sacré sang ko mu doog a sëy wala dañ ko yóbbu ci guy gi mu wër ñetti yoon ñu muur ko mu doog a sëy biñ koy takk ci bokkaale lañ ko takk foofu sax dafa sori waa ji ci boppam ba mu gisee ndaw si xemmem ko dafa dem ci benn buxaaba ne ko xoolal ma ndaw si ndax baax na wala baaxul waa ji ne la bàyyi fi juróom-ñaari juróom-ñaar bàyyi fi juróom-ñaari juróom-ñaar mu bàyyi fi juróom-ñaari juróom-ñaar yooyu mu xëy suba dem ki mu doon seetal ne ko ah baax na de mën ngaa takk moom loolu mu wax noonu fan la ko jëlee ne baax na mën naa takk loolu moo tax bala ngay takk ci bokkaale ngay jëm wala sax nga gis ndaw si mooy dem ci ab xërëmkat ne ko damaa bëgg nga xërëmal ma waa ji may génnal nangami at a ngi nii ñu ngi génn daf maa bañ a takk xërëmal ma ko nanga ma ko yeewal ba mu ne ngoon ñu yeew waa ji mu ñëw takk sëy boobu doom ji ci judd bokkaale kan ngay doon parce que sëy bi ci xërëm lañ ko takkee ndaw si ëmb di ëmb ci bokkaale ak xërëm doom ji juddu ca ca maternité ba lañ ko fekk takkal ko lam ci loxo bi lam ci tànk bi ñeenti ndomb ci ndigg bi juróom-ñaari bant bale ci bopp bi fii Sénégal bu liir juddoo dañ jël juróom-ñaari bant bale ak paaka dukk ci suuf njaganaay bi wala loolu du bokkaale loolu ban diine la fan lañ ko jàngee Muhammad moo ko jàngalee wala dañ ko fekk ci alxuraan bu fekkee mu ngi ci alxuraan nañ ma jox saar bi balaa may jóge fii bokkaale la léegi nag xale bi bëgg a màgg ci environnement boobu lan lay gëm ay xërëm du mun a am tawxiid ba ba muy dee du mun a xam yàlla ba ba muy dee nga nekk jullit ci loolu nag nekk ci jàkka ji nekk ci mbedd mi di sëgg ci quraan bi di yuuxu fekk yow dara sa jëf dara la ci yàlla nanguwul parce que da ngay bokkaale kuy bokkaale yàlla du nangu jëfam loolu na leer ci ñun de kuy bokkaale bu yeboo nga woor weer yi ba mu jeex bu yeboo nga aji màkk bu yeboo nga julli ba sa jëwi ñuul ko li ngay def yàlla du ko nangu moo tax hatta tu'minu billahi wahda li ibrahima waxoon ay mbokkam wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal bagda abadan hatta tu'minu billahi wahda yàlla kese rek yàlla doog a jël say jëf waaye di rukkoo fekk yaa ngi def dara ci sa xol di sujjóot fekk am na loo gëm yàlla du ko nangu mbokk yi ci yàlla pas-pas boobu lañ war a def ci sunu bopp mooy pas-pasu aqida bi tawxid li anna tawxid huwa ashraf wa ahamu lfuruu al aqida bal al aqidatu kulluha tawxidun soo déggee ñu naan pas-pas diw est-ce que pas-pasam wér na wala wérul mooy mbirum tawxiid la mbirum kennal yàlla xoolal saar bu ndaw bii ñuy jàng ci alquran nga xam ne tey ci weeru koor am na imaam yoo xam ne moom dong la ñuy tari ci naafila bi muy suuratul ixlaas keroog ba gaa yi ñëwee ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko yow yàlla bi ñuy wax ñu gëm ko dañoo bëgg nga jox ñu melokaanu yàlla boobu yàlla bi ñuy wax nanu gëm moom suñ ko munee laal daal bëgg nañ nga wax ñu nuñ koy laalee su fekkee mënuñu loolu nga melal nu ko su fekkee mënuñu loolu nga fexe ñu ñam ko wala ñu dégg ko wala ñu gis ko yàlla daal di yónni yonent yàlla mo yàlla yàlla yónni jibril jibril indi alquran alquran wàcc ne leen qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad bu la jaam ñi laajee kan mooy yàlla mu ne nag leen wax ne yàlla kenn la loolu moo tax gis nga ci pas-pasu jullit yow li ngay gëm mooy yàlla kenn la du ñaar du ñett du ñeent yàlla kenn la su fekkee dangaa bëgg a nekk jullit te pas-pas boobu nekkul ci sa xol sa diine du mën a wér ñaareel bi mooy allahu samad yàlla moomu moom lañ jublal mbir yi keneen ku mu mën a doon ay mbiram ci yàlla la ko jubal yàlla rek lañ jubal mbir yi moom yàlla lam yalit walam yuulat jurul kenn kenn jurul ko yàlla jurul kenn kon suñu gëmee ku gëm fii ne yàlla am na doom yow sa pas-pas boobu wérul ku gëm fi ne yàlla am na soxna yow sa pas-pas wérul loolu moo tax jullit day gëm yàlla amul doom jurul kenn kenn juru ko al imaamul baqillaani tuubloo na li lii tuubloo na ci dëkk bu dul jeex mbokk yi al imaamul baqillaani baat bii lam yalit walam yuulat tuubloo na ci ab dëkk invité nañ ko ci benn jaamukaayu yàlla bu ñu ne yàlla lan fay jaamu bi mu ñëwee ñu ne ko dañoo am ay laaj yu ñu lay laaj yenn yi ci sa xel nga koy tontu yenn yi ci xam-xam nga koy tontu mu leen bismillah ñu ne ko yéen jullit ñi da ngeen ne yonent yàlla Muhammad musoon naa ñaan weer wi xar ñaar mu ne waaw ñu ne ko tontoo ñu xam-xam bul ñu tontoo xel mu ne leen yéen da ngeen ne yéen seen yonent musoon naa ñaan benn taabul jóge kaw asamaan ay palaat ngeen lekk mu ne ñu ne ko waaw mu ne yéen lu tax lekku leen ci gars yi ne tekk noppi mu ne leen ñaar yëpp am na muhammad ñaar na weer wi xar ñaar yàlla moo ko tuddee saar ci quran suratul inshiqaq iqtarabati saa wan shaqal qamar mu ne leen beneen bi isa ñaan na bool jóge kaw asamaan wàcc muy suratul maida ñu ne ko wax nga dëgg kooku dem toog keneen ñëw ne ko man laaj bi ma lay laaj xel nga may tontoo dooma tontoo xam-xam mu ne ko bismillah laaj bi ma lay laaj xel nga may tontoo dooma tontoo xam-xam parce que kay dafa ñëw di jaay xam-xam ñu dóor ko mu toog mu ñëw ne ko loo xam ci jabaru yonent bu ñuy tuumaal njaaloo xel laa wax nga tontoo ma nag kan la kooku mooy Aïcha mu ne ko man de sama tontu foofu mooy benn jigéen a ngi nii boo xam ne amul jëkkër am doom kii am jëkkër amul doom ñoom ñaar bu ñuy tuumaal njaaloo ku njaaloo ndaw si amul jëkkër am doom kii am jëkkër amul doom ñoom ñaar ku njaaloo waa ji daal di yuuxu dem toog mu ne ko ñaar yi benn amu ci bu fekkee Mariama moo am doom amul jëkkër yàlla moo ne inna masala isa inda allahi ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alhaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin bu dee aïcha la yàlla moo wax ci quran ne inna allazina jaa'u bil ifki usbatun minkum ñi indi fen bi benn naa féq la ci yéen biir seen biir yéen jullit yi benn amu ci waa jooju dem toog keneen ñëw ne ko sama laaj man ci xam-xam laa bëgg nga teg ko mu ne ko laaj bi mooy lan mu ne ko isa atharu min muhammad isa moo gën a set muhammad mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko ndax muhammad dafa am ay soxna te isa musta sëy te sëy dafa salte ku ko def ku ne dangaa salte al imam ne ko kon isa moo gën a set baayam yàlla ndax ne ngeen yàllaay baayam yàllaa ko jur kon doom jee gën a set baay ji rek waa ji sakk ay noppam yuuxu ne ko qulta haqqan wa nataqta sidqan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñépp ñu nekk ci mbooloo boobu daal di tuub lu tax mooy yàlla mooy yàlla nit ñi nag dañoo comprendre kan mooy yàlla moo tax ñu mel nii nu mel tey yàlla lañ xamul ba léegi moo tax suñu dund mel nii dañuy woor di julli di génne azaka di aji màkk da ngay gis waa ji dem màkk di di toj ay nen da ngay gis ndaw si di tàggoo màkk wala alaaji bi di tàggoo di aji màkk ñuy sotti oto bi ndox di ko lalal ay ay xobi paftan mu ciy dëkk muy nuyoo loxo càmmoñ nga gis waa ji nekk jullit de dégg ñu ne asalaatu xayru min an naw mu ubbi buntu néegam xam nga lu mu njëkk a sotti ci buntu néeg balaa muy génn ndox ndeysaan dañoo dese dañoo setagul ba léegi ñaata nit ci ñun fii ay jullit ñooy yeewu di sotti ndox seen i cantine yi seen buntu bitig yi seen buntu kër yi ñaata ci ñun fii ñoo koy def kooku soo ko nee lii nag mu ne ndox mooy indi jàmm lan moo tax Grand Yoff ñu utal ko ay canal da ngeen daan lab kon kay ndox amul jàmm borom ndox moo am jàmm muy yàlla yàlla mooy borom jàmm lan moo tax ma léegi-léegi bi may ñëw man ak waa ji ma ne ko waaw canal yii nag mu ne dañ koy gas di ko fattar gi lu tax pour ndox mi bu mu fi taxaw kon ndox amul jàmm kii wàcce ndox mi moo am jàmm kooku lañ war a ñaan jàmm ni jullit lépp daf ko war a delloo ci yàlla tabaraka wa taala rawatina nag yow li ngay def diina ji tere la ko tey boo ne benn waay yow loolu ngay def diina def la ko tere da ngay dégg waa ji di weddi naan ah man day ko dina tere sama yoon nekku ci moom dama koy def kon yow doo jullit ndax bu fekkee da ngaa nangu nekk jullit borom diine ji nga xam ne mooy yàlla te mu wàcce diine ji ne la mankat boo nekkee jullit lii mooy sa pas-pas nga lànk loolu doo jullit maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor ak jullit bu jigéen yàllaa ko bi yonent wax ba pare ñu naan waaye waaye yàllaa ko wax nga dégg ñu ne waaye su yàlla waxee ku ne waaye doo jullit ma delluwaat ci wax ji su yàlla waxee yonentu wax ku ne waaye doo jullit ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa raas bu yàllaa ku yonentu waxee jëfe rek waaye da nga dégg ñu ne yàlla nee na yonent nee na nga dégg ku naan ah waaye nag ñun li lañ fekk mag ñi di def ñun li lañ fekk samay maam de man de samay maam li laa fekk ñuy def loolu laay def kon kay demal ci say diine maam bàyyil diine yàlla ji demal ci sa diine maam mbokk yi tawxiid moom la ñu yàlla di wax ne maani tawxiid min maani tawxiid dafa bokk ci maanay tawxiid kennal yàlla mooy an numina bi ann allaha taala waxdahu huwa alxaaliq mooy dañuy gëm ne yàlla rek kot mooy aji bind ci kenn bindul ku dul yàlla wala am na ku bind fi wala gis ngeen ku bind dama leen laaj de dama bëgg ngeen di tontu ndax da ngeen a dégg ku ne maa ma maay borom bindee fi ma ni allahu akbar alquran moo ne ini lazina tad'una min dunillah lan yaxluqu zubaban walaw ijtamau lahu gaa yi ngeen di woon naan ay yàlla lañ yàlla nee ne weñ yi dinaaw sax binduñu ko weñ yi xam nga lu aaya bi garaaw aaya bi li mu li mu continué mu ne bu weñ bi këfee ci seen góom dara mënuñoo jàpp weñ bi ne ko delloo si ma liñ fi këf gis nga waa ji nga naan yàlla la yàlla bu mu am góom weñ tag ci yaramam ne coppet ci góom bi dara naaw ak moom yàlla nee na allahu akbar waa ji mënul jàpp weñ bi ne ko delloo si ma li nga indi xam nga moo tax aaya bi mu ne lan fa du fa taalibu wal matlub wa ma qadarullaha haqa qadrihi teguñu yàlla fuñ ko war a teg yàlla teguñu ko fuñ ko war a teg màggaluñu yàlla comme niñ ko war a màggalee allahu moo tax ma wax leen ne li tax ñu mel nii mooy alquran lañ bàyyi parce que alquran mooy kitaabu tawxid léeg-léeg nga dégg ñu ne dafa am benn cheikh bu taalif kitaab tudde ko kitaabu tawxid a déedéet kitaabu tawxid benn téere kese la muy alquranul karim beneen téere bu dul boobu dangaa tëbb ci alquran boobu pour leeral aaya yi waaye kitaabu tawxid benn téere kese la mooy bii muy alquran beneen amul benn kese muy kitaabu tawxid mooy alquranul karim moom tawxiid boobu li tax jullit war ko gëm mooy mooy tax nga nekk jullit da ngay gëm ne yàllaay aji bind ji kenn bindul kudul yàlla da ngay gëm ne yàlla moomu almudabbiru li haazal kawni bi kulli ma fihi min ardin wa samawat wa nujum wa annahu la sharika lahu fi mulkihi wala maabuda bi haqqin siwahu wa huwa bi kulli shay'in alim moom yàlla tabaraka wa taala da ngay gëm ne moom kot moom kenn mooy lu def lu ko neex ci àddina bi su ko neexee mu tàng bu ko neexee mu sedd bu ko neexee mu ngelaw bu ko neexee mu téye ngelaw li bu ko neexee mu guddi bu ko neexee mu bëccëg ci ban waxtu lañ nekk bëccëg na fi kenn indi guddi gi ba xam na kenn mer ne dama indi guddi gi aca bismillah kenn mënu ko yàlla rek gis nga lii mooy pas-pas bi day gëm ne yàlla lii muy def moom dong moo ko mun def keneen mënu ko Ibra Ibrahima keroog ba mu dajeeg Namrud mu ne ko kuy sa borom mu ne yàlla ah yàlla lu muy def mu ne ko yàlla day rey di dundal mu ne ko mën naa loolu Ibrahima ne ko defal ma xool mu dem jàpp ñaari nit rey kenn ki ne kenn ki baal naa la mu ne gis nga kii dundal naa ko baal naa ko day sama waay mu ne ah mu ne ko demal Ibrahima ne ko yàlla mooy indi jant bi penku bu ko indee penku indi ko sow mu ne ko xam nga duma sa morom bu ma diingataan du ma sa morom gis nga mani dafa am mbir yoo xam ne suñ koy jox mbindeef dara waralu ko lu dul riir rek soo fekkee mbindeef mu mënul dara nga koy jox li yàlla mën da ngaa riir rek dara dara lu dul feebar boobu ñu tuddee riir boo wéroon doo fekk li yàlla mën nga koy jox nit mani dafa am loo xam ne yàllaa ko moom gis ngeen asamaan si yàllaa ko bind ndax am na ku mun a defar asamaan ku dul yàlla la fay xew yàlla dong moo ko fay xewal keneen du ko fa xewal bu ko neexee moom asamaan si moom yàlla mu lëndëmal ko bu ko neexee mu leeral ko bu ko neexee mu jël niir yi muur ci su yàlla muuree niir yi ci asamaan si na am ko ko dindi jant bi bu ko yàlla tàngalee na am ku yëg ci kaw daal di wàññi dosage bi ne non foo ñu wàññi ko parce que dafa dafa dafa tàng si trop hein nit ñi sonn nañu ah damay wàññi daa nga acca bismillah guddi gi bu ko yàlla lëndëmale na am ku dem indi jant bi fenkal ko loolu yàlla rek moo ko mën tabaraka wa taala wan nu juumu biddeew yi ci kaw asamaan kan moo ko fa def yàlla na am ñu yëg dem dindi ko américain yi li ñuy kannasu kannasu anglais yi li ñuy réew tubaab yi li ñuy fuuy biddéew yi ci kaw asamaan si mu ci leen cee dégg ñu ne wàcce nañ ci benn biddéew mu ngi ni na nit ñi ñëw foto pourtant dañuy dem foofu di filmer de ñëw di ko jàngal nit ñi waaye nañ ci wàccaale benn au contraire bu ñu fa demee dañuy tuub ñaata ci ñoom ñoo fa dem biñ demee ñu xool mbir yi xam ne dëgg-dëgg lii yàlla rek moo ko mën biñ ñëw ñu tuub ñaata ñaata mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yàlla yemul ci doxal gouvernement bi nekk asamaan yemul ci biddéew yi waaye daf ñoo wax ne nguuram gi fii hukk fii mulki yi moomeelam moom yàlla moomeelam li mu moom wala maabuda bi xaqin siwaa kenn waru cee def lenn kenn waru cee fell lenn jëme ko feneen ku dul ci yàlla moom yàlla yemul ci loolu mu ne wa huwa bi kulli shay'in alim kenn dong moo fi nekk moo xam lépp mën lépp muy yàlla ki xam lépp mooy yàlla ki mën lépp mooy yàlla amoon na fi seen benn théâtre bu ngeen doon tuddee badu badu mën lépp fu mu mujje mooy ndeke man badu dañ ma doon jay mënuma lépp wala wala ki mën lépp mooy kenn mooy yàlla allahu akbar keneen yaa ngi ak ay ay aajo yu fajuwul yaa ngi feebar am ñuy feebar yaa ngi am ay mbokk yu dee ay doom yu dee jege ñaala yu dee tus nga ci mënul tus yàlla rekk mooy ki mën lépp tabaraka wa taala kon mu war a leer sunu bopp ñu war a gëm ne bokk na ci pas-pas bokk na ci tawxid an nataqida annahu subhanahu huwa almuqassimu alarzaq dafa bokk ci pas-pas pour nga gëm yàlla rek da ngay gëm ne wërsëg wi wërsëg yàlla moo koy séddale léeg-léeg nga gis benn waay bu sonn am na ci kilifa yi am na ci borom kër yi ñoo xam ne ba ñuy ñëw Dakar boo leen laajoon yéen kañ nga ñëw Dakar ñu ne la la il mille mille neuf cent laa ñëw Dakar mille neuf cent te ba léegi amuñu dara am na ñu tukki ci ñun waaye amuñu dara am na ñu naaw dem ba France États-Unis d'Amérique daf fay nangami milliards yi at xam nga la la leen jural ñemeetuñu ñibbisi xam nga lu tax yàlla mooy séddale wërsëg yi yàlla mooy maye am na ñoo xam ne ñu ngi fii musu ñoo dem musu ñu dem fenn te am nañ gis nga loolu lan la lay jural mooy da ngay noppalu da ngay liggéey bu liggéey jotee wàcc bu wàcc jotee waaye li ngay fàggu lu mu tuuti tuuti tuuti day dagan da nga koy teg ci lu leer xoolal tey am na ñu jël ay gaal dugg ci di jéem a xuus géej gi ba dee fekk leen ci ñooñu gëmuñu ne yàlla mooy séddale wërsëg yi am na ñoo xam ne dañoo takk ay gàllaaj pour am alal am na ñuy def sacrifice di dagg ay baaraam di dagg ay nopp di luqati bët di joxe seeni doom di joxe seeni yaay di joxe seeni jabar pour am alal am na jigéen ñuy takk benn benn benn wee wee ñu ne boo ci reyee nangami liir am alal jigéen ñaa ngi koy takk suñ duggee maternité liir yi commencé crise ñu ne boo ci amee nangam am alal lu waral loolu mooy gëmuñu ne yàlla mooy wërsëgalaat ar rizqu bi yadillah wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha wërsëg yàlla nee na lii dukkat ci kaw suuf lii dund yëpp man yàlla maa leen di wërsëgale mbokk yi xool leen rabu àll yi fan la ñuy liggéeyee picc yi fan la ñuy liggéeyee mbelentaan yi sax dañuy lekk di naan te liggéeyuñu fenn mbelentaan yi sa biir kër da ngay tabax kër ba mu rafet mbelentaan yi ñëw dëkk fa tus nga leen mënalul nga dem jënd puudar pompe ba sonn suba ñu ñëwaat ñooñu sax dañoo ndaw ma jël kaña kaña yéen waa Grand Yoff yéen waa Grand Yoff ñaata at ngeen fekk kaña Grand Yoff kaña moo leen fi njëkk dëkk bi ngeen di ñëw fi ngeen fekk kaña boobu ba léegi yéen koy xeex ndax dem na jeex na kaña yi jeex nañ Grand Yoff waaw sénégalais la fi la dëkk fi ngeen ko fekk au contraire sax moo leen fi jiitu poson ngeen rey ngeen daaj ngeen i kaaf lu ne def ngeen ko kaña yi ne leen noppalu leen ñun ak yéen ñoo fi bokk dëkk tus ngeen ñu mënulul ndax yàlla mi leen indi fi moo ñu fi indi ci biir kaaba gi laa toog ndeysaan di jàng alxuraan rek benn muus ñëw romb ma muus ci biir kaaba gi naan nii sàppe yi waxuma ci biti de ci biir kaaba gi muus mi naan nii sàppe yi ma arrêté li may jàng di waxool dama tiit keroog muus ma ko gis muus muus mi naan ni ba ci yàgg daal di droite taxaw ci bërigo zam-zam yi ñu ñëw di ko indi ndox muy naan ma ne allahu akbar fii de nekk fi muus dagan na fii moom nekk fa muus dagan na muus laa wax muus muus bi di naan zam-zam ci biir kaaba gi kon yàlla mooy joxe wërsëg bi gis nga su nit gëmee ne yàlla mooy joxe wërsëg sa dund day simple lan moo indi góor jigéen Sénégal yàkkamti sa wërsëg nga dem nekk góor jigéen la moo tax jigéen di jaay boppam yàkkamti wërsëgam làmb ji lan moo ko waral wërsëg làmb ji ngeen gis ni waat yàkkamti wërsëg rek gis nga yàlla mi ne di nga am mil ay million wallahi boo tëddoon di nelaw millions yi ñëw bind nañ ko fii bu yàgg da ngaa yàkkamte rek soo toogee nga am ko ci bu dagan boo dee dugg àjjana boo yàkkamtee nga am ko ci haram boo dee dem safara loolu moo tax ñu war a teey gis nga ku gëm yàlla day teey mbokk yi ma laaj leen ñaari laaj Serigne Touba lu mu doon liggéey teddoon na wala teddul amoon na wërsëg wala amul wërsëg dafa am bay maye da nga gis mu toog di jaamu yàlla ñu ñëw jox koy million mu joxe ko boo jëmee ci yàlla yàlla day wax adduna bi demal si wuy waa ji waaye boo toppee adduna adduna ne tey nga dee dinaa la dawloo ba nga ne kot damm say laaf doo am tus xoolal tey nit ñi nit ñuy xëre di daw lu nekk ñu dugg ci ixwaan yi allahu subhanahu wa taala dañuy gëm ne moo yor wërsëg yàlla ne mbooleem loolu ñu naan daaba daaba mooy lépp luy noyyi di dukkat yàlla nee na day lekk di naan xool leen rabu àll yi ni ñuy dunde lépp a ngi dund lépp gaynde gaynde lu muy dunde yàpp ndax day lekk yàpp fanaan ah léeg-léeg nga gis benn gaynde ñu génne la ko ci télé bi ñu ne gaynde bi am na téeméeri at te chaque jour yàpp bu tàngalee lekk fu muy liggéeyee yàlla moo koy wërsëgal te xoolal waxuma waxuma ñax de yàpp moo fi gën a cher fi mu nekk nii si ñun am na ñoo xam ne tabaski lañ gëj a lekk yàpp ndax cher te gaynde bis mu nekk mu lekk ci ñaata ay tonnes ay kilos day lekk ba desal wala parce que dafa gëm ne yàlla moo may jox ma lekk jullit day gëm ne yàlla moo koy dundal moom yàlla tabaraka wa taala musarrifu riyaahi mooy dawloo ngelaw li ah imaam waaw yàlla alam asalaamaaleykum imaam xayaakumullah kan mooy imaam Thiam kooku moom est-ce que est-ce que woor na imaam Thiam mbaa woor na lii laa sant mbokk yi ci yàlla yàlla mooy borom ngelaw li gis nga tey gis nga nit bu moomoon ngelaw li billahi bu la meree day gàddu pap paakaam rek ne la yow mën ngay fontoo dootoo noyyi sa tiw bi la daan tippit dagg moo tax gis ngeen ngelaw li yàlla jox ko nit ku la mere ah courant bi bañal fay Senelec nga xool nuñ lay def dañ lay dagg boobu dafa sori sax bi a ngi nii boo jëndil crédit nuñ lay def dañ lay dagg ndox maa ngi nii boo fay nuñ lay def dañ lay dagg location baa ngi nii boo fay lu ñu lay def ci biti place baa ngi nii boo fay lu ñu lay def ci biti ngelaw laa ngi nii yàlla bàyyi la nga bañ koo jaamu bañ a woor bañ a julli te da ngay continuer di noyyi. bu ko yàlla joxoon nit nga xam bu ko yàlla joxoon jëkkër mu xëy mere jabar jabar ñaan baat daan ko da ngay ñaan baat mu ne ko waaw mu ne ko ah. ci kontóor bi laa jëm de doon nooyi de mu ne kon baa bàyyi ko moo tax yàlla joxu ko sa jëkkër bu ko yàlla joxoon jabar ji day xëy na la danga maa soof dama koy dagg uti beneen góor moo tax yàlla joxu ko jigéen ñi gis nga yàlla ko bàyyi joxu ko nit ngelaw li yàllaa ko moom nu mu ko neexee mu tourné ko yow amoo loo ci mën bu ko neexee mu jële ko ndeyjoor bu ko neexee mu jële ko càmmoñ bu ko neexee mu jële ko penk bu ko neexee mu jële ko sow tus nga ci munut bu ko neexee mu seddal ko ba mu sedd ba bu la uppee nga daw sangu ji bu ko neexee mu tàngal ko ba mu tàng ba doo ñëwee fanaan sa néeg di aju ci kaw ardoise ak terrasse ak étage yi yàlla tabaraka wa taala mooy musarrifu riyaax yi waaye wa majra sahaabi yàlla mooy dawal niir yi wal anhaar yàllaay dawal ndox mi ndox mi yàllaa ko moom kenn moomu ko ku dul moom moo ko fi indi te mooy boroomam te ni mu koy sotteeg ni mu koy doxalee moom dong moo ko mën bala ñu doon xam loolu léegi na taw ba pare ñu ñëw ci ki ëpp alal Sénégal ne ko tey de réew mi dafa yendoo taw mu ne waaw malaaka yi ne ko facture baa ngi nii fayal kon li muy njëkk a def mooy jëli day jël téléphone bi di woo ay mbokkam fu ngeen nekk ñu ne ñu mën a ñëw leen am naa problème comme ni ñu indilee waa ji benn këyit ne ko commissaire moo la woo trois heures na nga wuyu mu jël téléphone am di woo ay mbokkam tey bu yaa yàlla waxoon loolu nga xam ne kon yàlla mooy yàlla tabaraka wa taala ay mbiram moom dong moo ko mun moo ko moom keneen munu ci tus moom yàlla mu nazilul amtaar mooy wàcce taw bi kan mooy wàcce taw ko dul yàlla yàlla rek moom moom taw bi moo koy wàcc te fu ko neex la koy taw léeg-léeg ñaari koñ ñu dend mbedd séparé leen fii taw fii du taw nga gis nit ñi fii ñuy tooy xepp ñuy wow koŋ te benn mbedd moo séparé koñ bi wala benn tali moom yàlla tabaraka wa taala mu qallibu leyli wa nahaar mooy wëlbati bëccëg mooy dugal guddi te kenn du dégg benn bruit te lampe bi sa biir nekk soo doon léegi taal lampe bi di fi dindi lëndëm bi foog nga dégg benn bruit bu ndaw contact bi foog mu def benn son yàlla tabaraka wa taala buy indi guddi kenn du dégg bruit buy génne bëccëg di génne guddi di dugal bëccëg kenn du dégg yëngatu moom yàlla ci xereñam waaye moom yàlla wa anna ala kulli shay'in qadir moo mën lépp nag ala kulli shay'in qadir lépp la mën benn benn kàccoor dafa jàng aaya bi ci alquran inna allah ala kulli shay'in qadir mu gàddu am nen ñëw ci benn borom xam-xam ne ko dafa am aaya bu ma jàng ci alquran mu ne ko waaw ne ko ban aaya la mu ne inna allah ala kulli shay'in qadir borom xam-xam bi ne ko waaw loolu de alxuraan la mu ne ko est-ce que aaya bi dëgg la mu ne ko lan nga ciy sikki sàkk lu muy tekki mu ne ko yàlla nee na maa mën lépp mu ne ko ndax da nga ciy sikki sàkk mu ne waaw mu ne loolu lu ci sa sikki sàkk mu ne nen bii su fekkee yàlla mën lépp na jël àddina bi dugal ko ci nen bi te bu mu ko toj lii lan la mu ne nen ne nen la mu ne waaw mu ne na yàlla jël àddina bi yëpp dugal ko ci nen bi te bu mu ko toj du moom moo nee na moo mën lépp borom xam-xam ne ko yàlla def na lu ko gën a tuuti li nga yéemu ni am na lu gën a tuuti nen te yàlla dugal na ci àdduna bi ne ko loolu lan la mu ne ko sa bët yi bi nga xoolee ni loo gis mu ne ko xanaa sa téere yi ak bibliothèque bi ak yow mu ne ko waaw yàlla du ko dugal ci sa bët yi bu ci dugaloon doo ko gis te bët yi moo gën a tuuti nen te ku nekk xam na ne kay nen moo ëpp bët fi mu nekk nii tax ngeen may gis damaa dugg ci seen biir bët bi di su ma ci dugaloon du ngeen ma gis yàllaa ci def image boo xam ne mooy xëcc ba mu dugg nga doog a gis kon kay borom bi tabaraka wa taala mën na lópp loolu kon inna allah ala kulli shay'in qadir dafa bokk ci tawhid ba tey an nu'mina bi anna allaha wahdahu huwa allazi arsala rusul dafa bokk ci pas-pas jullit pour mu mën a kennal yàlla mu gëm ne yonent yi yàlla moo leen yónni ay ndaw lañ yu yàlla tànn ci biir mbindeef yi baaxal leen ba ñu baax yónni leen pour ñu mën a indi mission yu yàlla tabaraka wa taala yàlla baax rek munoon naa wax nit ñi jaamu leen ma suñ ko jaamoo xayrun buñ ko jaamuwul mu jëflante kook ñun waaye yàlla ne jaamu leen ma doyul mu yónni ay yonent pour yonent yi ñëw fàttali ñu lan moo tax ñu ñëw ci kaw suuf bokk na ci ba tey moom yàlla wa xalaqal insaan wal jinn wal malaa'ika ñetti mbindeef yi yàllaa leen bind muy doomu aadama wala dafa am ci kaw suuf ku ku defar doomu aadama am na benn waay bu musa wax diw mi maa ko créé Idrissa Seck mi maa ko créé déet da nga naan maa ko formé ba mais maa ko créé yàlla kay mooy créateur bu mag bi mooy xaaliq neel maa ko créé créateur bi kenn la muy yàlla ñeneen ñëpp dañuy fekk li yàlla def ñu tibb ci defar waaye bindkat bi kenn la mooy yàlla moo bind nit ci lan la ko bindee mani yi ndox mu salte moo tax nit warul rëy su la yàlla ne jaamu ma nga bañ mas mas wala yàlla ne la wooral nga bañ su la yàlla ne wooral nga bañ wala mu ne la jullil nga bañ yàlla laa wax su la nee wooral nga bañ da ngaa fàtte fu mu la binde ci lan la la yàlla bind fal yanzuril insaan mimma xuliqa xool leen ci lan laa leen bind doomu aadama yow mi may sant jaamu nga lànk yàlla ne na xoolal ci lan laa la bind yàlla mu ne xalaqal insaan min ma in mahin maa bind nit ci ndox mu doyati ndox moo xam ne doy na waar ba bu taqee sa yaram li lay arrangé rek mooy boo yeewoo sangu ji bu taqee sa yére dindi ko rek fóot ko rek yàlla nee na ndox moomu laa jël fa ja'alnaahu fi qaraarin makin ma dugal ko ci place bu am sécurité ci ñetti lëndëm ginnaaw ba ma ko jëlee ci ndigal góor ak déndi baatu jigéen li tax nit war ta rëy ci kanamu yàlla mooy xool leen doomu aadama bi muy jógee ci baayam di ñëw ci way juróom bu jigéen fan la jaar fu ñuy tuuree ndox bi muy ga- jógee ci yaayam di gane àdduna fan la jaar fu ñuy tuuree ndox est-ce que kooku war naa rëy ma ni doomu aadama bi ñu génn ci baayam di dem ci yaayam fu ñuy tuuree ndox la jaar benn waaye dafa toog ci diggu mbooloom naan xam ngeen may kan a taarifu na man ana benn borom xam-xam ne ko naam na arifu man ant xam nañ yaay kan kay mu ne man ana mu ne ko anta allazi mararta bi marril bawli marratayni yaay ki nga xam ne fu ñuy tuure ndox ñaari yoon nga fa jaar bi ngay jógee ci sa papa ak bi ngay jógee ci sa yaay yëpp fu ñuy tuure ndox doomu aadama bi muy gane adduna loxo yi ko njëkkalaal lu ñu def dañoo raxasu ji soo génnee adduna ñi mujjeg yow ci morgue bi wala dem ba armeel yi yoor la ci pax ñëw ci kër gi suñ jógee armeel yi lan la ñuy teg ci buntu kër gi luñ koy doyee gis nga kon doomu aadama lu muy rëy yàlla sant la ne la ci weeru koor gaa yi añ mu nekk ni bu ngeen toppee marché bi balaa ngeen koo jeexal ngeen gis taabal yi ñuy jaay añ ngeen gis ay jullit di jaay ndékki ci weeru koor ay jullit di jënd añ ci weeru koor di jënd ndékki ci weeru koor ay jullit laa wax de di añ ci weeru koor di ndékki alors yow yaa ngi ci weer wi wala yaa ngi ci koor gi mu ne maa ngi ci weer wi te wooroo du ma woor ndogu laay joxe ku la laaj ndogu yàlla est-ce que yonent bi moo la ne na nga joxe ndogu gis ngeen ku bañ a julli wala bañ a woor dañ la war a rey dañ la war a rey ci lislaam moo tax bàkkaar gëntër yi nga dund fekke weeru koor lànk ba na woor surtout xoolal borom bi di la wax di la fàttali bi ma lay bind fi ma jaar ak yow yàlla ne ndox moomu laa jël jële ko ci sa baay dugal ko ci sa yaay ma koy changer étape par étape par 40 jours yàlla di changé ndox mi ñetti 40 jours yu njëkk yi ndox la woon yàlla jël ko def ko lumbu deret lumbu deret boobu yàlla jël alxalaaya loolu ñu naan selil dugal ko ci biir deret ji moo tax soo xoolee gis buñ waxee nga dégg boo laalee dara mu nooy wala mu ñagas soo la dugalee lenn ci sa gémmiñ mu forox wala mu saf wala mu wex wala mu lewet loolu mooy ay selil 40 jours yax yo deret jooju yàlla def ko suuxu yàpp 40 jours yàpp boobu yàlla dugal ci ay yax fa kasaf naa al izaama lahman summa ansha'naahu xalqan axar fa tabaraka allahu ahsana alxaaliqin 40 jours yàlla yónni malaayika mu ñëw ci biiru ndaw si lan lay def si ruu lay indi bënn bët poose nopp yi xotti gémmiñ saxal kawar gi defar tànk yeeg loxo yi kenn déggul liir biy jooy wala jigéenu biir mës na leen a romb ngeen dégg liir biy jooy hmm? boobu ana ana ana doomu aadama yi boobu bàyyi ngi nii sax bàyyi ngi nii xamu ci dara ndaw si sax ëmb na yëgul ne ëmb na lu dul mu dem maternité passé visite ñu ne ko da nga ëmb yaa ngi ci ñetti weer ñeenti weer mu doog a ñëw ak carnem ne dama ëmb ba mu yëmb yëgu ko yàlla nee na liir boobu nekk ci biiru yaayam neuf mois trois trois mois yu njëkk yi dafay kàbbar ne allahu akbar loxo yi ci kaw comme kuy kàbbar mu am 6 mois mu rukkoo mu am 9 mois mu sujjóot génn moo tax jigéen buy jur doom foog jëbi rek mooy génn day sujjóot su jëbi bañee génn rek musiba am foog opération am ci moo tax ku bañ a sujjóot rek def nga musiba su sujjóot amul rek musiba am na ku iñaane yàlla sa jë tey la mais démb bi nga waree gane àdduna yàlla mu ne contrat bi man ak yow lenn kese la mooy as sujud nga nangu yàlla mu ne acca uxruj ayyuhal mawlud boobu nangoon nga sujud am na ci ñun ñoo xam ne tey dañoo iñaane yàlla seen jë ba bu ñu fakkastaloo dañuy jaaxaan léeg-léeg nga gis ci ab ponkal bu fanaan ak soxnaam dégg ci fajar ci jàkk ji ñu naan asalaatu xayru min an nawm mu bëgg a jóg dem jàkk jabar ji daal di koy teg loxo mu daal di tëddaat gis ngeen mbokk boobu bisa ngi ñëw jabar ji day yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkk yi ku sa jabar tere dem jàkk yéen a ngi may dégg ku sa jabar tere dem jàkk bisa ngi ñëw dina yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkk ja ku mbàjj bu ndugg dere dem jàkk bisa ngi ñëw ñu laxas la ci mbàjj mi yóbbu jàkk ja ku yaba rek boo déggee asalaatu xayru min an nawmi nga jóg waaye am na ci ñoo xam ne bu ñu déggee asalaatu xayru min an nawmi dañ naan la an nawmu xayru min asalaat yàlla moo bind nit yàlla moo bind jinne yàlla moo bind malaayika yi yàlla moo sàkk montagne yi sàkk rabu àll yi sànq gàncax yi moom yàlla mooy dundal mooy rey yi ma wax kenn indiwu ko fi ku dul yàlla su fekkee xam ngeen kenn ku fi indi wax leen turam dafa am ku fi indi nit dafa am ku fi indi jinne dafa am ku fi indi malaayika yi montagne yi ngeen di seen dafa am ku leen fi defar rabu àll yi ma ni weñ yi dinaaw sax indiwuñ ko fi weñ yi weñ ñoo gën a tuuti fel yeeg melentaan yeeg téeñ yi di dox suñu yaram yi indiwuñ ko fi te muñ leen fi koy jële yàllaa ko fi indi doomu aadama mënuñ ko fi jële yoo ngi nii yoo am na Grand Yoff wala amul Grand Yoff am na fi dañuy pompe poudre taal garab yoo ut ventilateur ut sànke teewul yooyu nañu dimbali leen ñu ñun dañuy naan ret ba suur tus ngeen ñu mën a lu te yoo du lekk ñax deret lay dunde deret te xam ngeen deret dafa seer te kenn mënut fexe ba yoo du dund yàllaa ko fi indi yàllaay boroomam moo ko bind alxuraan moo ko wax loolu mooy ba'uda mu nga
salaamaaleykum wa rahmatulah ngeen baal ñu tuuti rek benn maanaam question yi nga xam ne moom lañ ci yaakaar naa dana bu ko ci am na ko teel a préparé indi fii ñu bind ko balaa waxtu bi jot bu ko defee ñu mën ko préparé ku ci am question mu ngi teel a xalaat teel ko ci fii bind ko loolu lu muy jot aywa.
mbokk yi ñu ñëw ci alaamatu tawxid lan mooy wane ni nit ki am na tawxid nan la ñuy xamee ne diw waa ji jaamu yàlla bii moom kuy kennal yàlla la kañ lay nekk kañ lay doomu aadama di mën a nekk kuy kennal yàlla ay mandargaam kañ hatta yakunu al abdu muminan muwahidan yajibu alayhi an la yabuda illa allah ba mooy benn mbokk yi ci yàlla suñu buggee xam ne ñun dañuy weetal yàlla wala dañuy bokkaale yàlla ay muwahid lañ wala ay mushrik lañ nañu xool ndax ñu ngi jaamu yàlla ñu ngi koy kennal ñu ngi kennal yàlla ci jaamu gi kenn ci ñun su bëggee xool boppam moom fan la toll na xool ndax am na tawxiid ci xolam ci xelam ñaareel bi mooy wala yatawakkalu illa ala allah est-ce que yow yaa ngi wakkirlu ci yàlla est-ce que amoo koo wéeru est-ce que amoo koo sukkandiku est-ce que amoo koo jox sa bopp su fekkee am nga koo dénk sa bopp am nga koo wakkiirlu yow bokkoo ci mu waxit yow amoo tawxiid ba mooy ñaareel alxuraan moo ñu ko wax de wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin su fekkee yàlla rek ngeen gëm gis nga in xarfu lan la yéen ñu jàng naxu in xarfu lan la xarfu shart yàlla nee na bu fekkente ne man rek ngeen gëm wàkkiiru leen ci man jox leen ma seen bopp kon nit balaa muy nekk mu wax it foog mu jaamu yàlla kese foog mu def tawakkul alallahi yàlla kese ñetteel bi mooy wala yaxaafu xaqiqatan illa min allah doo ragal doo tiit lu dul yàlla wa iyaaya fattakuuni fala taxshawhum waxshawni bu leen leen ragal ragal leen ma wa iyaaya farhabuuni man yàlla kese na ngeen ma ragal jullit du ragal ko dul yàlla loolu moo tax nga gis yonent yi ñu jàkkaarloog ay buur xoolal Ibrahima ba mu jàkkaarloog Namrud xoolal Moussa bi mu jàkkaarloog Firawna kenn ci ñoom du tiit xoolal keroog ba ñuy sànni Ibrahima ci safara si nga gis yonent boo xam ne amul dara waaye am na yàlla gëm na yàlla mi ko yónni mu jàkkaarloog buur yoo xam ne ca jamono yooyu ku mel ne Firawna nga xam ne jiite woon na àdduna waaye Moussa musu ko ragal loolu moo tax boo amee tawxiid doo ragal ku dul yàlla soo àndeek yàlla dootoo tiit mbindeef dootoo ragal kenn ñun tey soo génnoon sa kër xuloog benn waay rek waa ji nekk ab làkkat da ngay dégg ñu ne demal nga baalu ko ndax làkkat la demal nga baalu ko àq demal ah sama waay kii bambara la de déggul olof de demal nga baalu ko de gis nga nga gis gaa yi yaay ji dem jënd guro ñu jiital waa ji mu ñëw naan waaw man kay man kay maa ngi jéggul parce que gëmul yàlla parce que ragalul yàlla moo tax mu ragal leneen ku ragalul yàlla ju lu jóg nga rek nga tiit ku jóg ku ragalul yàlla lu yëngu nga tiit ku ànd ak yàlla nag asamaan si bu doon dënu it da ngay xam ne borom asamaan si moo yëngal asamaanam Moussa keroog ba leen Firawna dàqee topp mbooloo mi Firawna topp seen ginnaaw Moussa ñëw ba sës ci géej gi banu Israël taxaw gis géej gi ñu geestu seen poussière bi Firawna di ñëw ñu tiit naan inna la mudrakun ay ñun danañ ñu dab tey ñu dee inna la mudrakun Moussa ne leen kalla inna ma'i rabbi kalla déedéet inna ma'i moo ngi ànd ak man rabbi sama borom gis ngeen tiitul keroog ba yonent bi duggee ci xunt mi moo ak Aboubacar Saddiq yéeféer yi ñëw di wër yonent bi nga xam ne yéeféer yi keroog pour jàpp yonent bi dañ cee joxe téeméeri gëléem ñu ne ku indi yonent bi muy dund wala mu dee dañ la may téeméeri gëléem téeméeri gëléem lañ joxe keroog ku ko indi hayyan aw mayitan ku indi yonent bi muy dund wala nga indi bopp bi dinañ la jox téeméeri gëléem ñu ñëw ba seen Aboubacar di leen seen yonent bi di leen seen gis poussière bi Aboubacar tiit lan la ko yonent wax yàlla mu ne allah tansaruhu faqad nasarahu llah is axrajahu allazina kafaru saani snayni is huma fi lgaar is yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana yonent xool Aboubacar ngi tiit yonent baa ngi jël loxoom teg ko ci dënn bi naan ko Babacar yàllaa ngi ànd ak ñun yàlla mu ngi ànd ak ñun jullit day ànd ak yàlla loolu moo tax dafa bokk ci màndargay tawxiid ku gëm yàlla doo tiit doo ragal kenn munta baare sa mission parce que yàlla sa boroom mooy boroom lépp mooy boroom ñépp yàlla moo nekk sa digganteeg jaam yi Izzuddin xam ngeen ko boroom xam-xam bu mag la ca Égypte benn buur daf ko mere ndax li muy wax jaami yàlla yi buur bi daal di koy tëj boole ko gaynde gu toog weer lekkul gaynde gi dañ ko xiifal ba mu xiif ba bët yi am ay laase yuut yi génn gaynde gi wow kom ñu daal di jël sëriñ bi buux ko ci biir kaaf gi ñu toog ay minutes ñu ne xool leen gaynde gi lu mu def sëriñ bi ñu ubbi kaaf gi ñu ñëw yërndu ñu gis gaynde gi toog ci wetu sëriñ bi di ko mar di mar lexu sëriñ bi naan ko ni di ko mar ñëpp tiit ñëpp yuux ñu fexe ba génne sëriñ bi tëj gaynde gi buur bi ne ko waaw yow man li ma jaaxal mooy gaynde gi dala doon mar lu doon sa problème bi la gaynde gi doon mar mu ne ndax yuut yi set na ba ma mën a julli man loolu moo doon sama problème ndax yuuti gaynde gi set na ba ma mën a julli masala fiq boobu moo amoon moo nekkoon ci man ndax gaynde gi yuutam yi laab na ba ma mën a julli allahu akbar xoolal ñu xoolal kooku rek ndax yuut yi set na ba mën a julli keneen ki dafa nekk ci gaal gaal gi damm nit ñiy lab moom ñu gis ko mu toog ci kaw ndox mi di jàpp bi mu jàppee ba pare vague yi puus ko bu dem ca tefes ga nit ñi wër ko ne ko ay ay yow yow nit ñiy lab ku nekk di ut bant bu mu jàpp yow nga toog ci ndox mi di jàngu mu ne leen jànguwuma de dama doon jàpp ñu ne ko lu tax nga doon jàpp mu ne bu may dee dajeek yà yàlla fekk maa ngi laab bu ma dem dee dajeek yàlla fekk maa ngi ak sobe pour ma dee dajeek yàlla fekk maa ngi ak njàpp moo tax ma doon jàpp ku gëm yàlla doo ragal ku dul yàlla mbokk yi ragal ku dul yàlla yàpp yàlla la saa yoo ragalee ku dul yàlla yow amatoo tawxiid yow bu yàlla yàlla doon tànn pour mission mission boobu mission boobu échec na ndax dangaa ragal mbindeefu yàlla te yàlla waxoon na le bu ragal kenn nag ma ragal man Ibrahima keroog bañ ko yeewee di ko sànni ci safara si Jibril ñëw ne ko loo soxla lan la wax maa ngi nii ñëw naa loo soxla ci man mu ne ko bu dee yow aw ma ak yow soxla bu dee yàlla nag yàlla mi tax ñi may def nii xam na ko du ma bàyyi yow aw ma yow affaire jullit day ragal yàlla mbokk yi moo tax pour nga nekk jullit mooy wala yaxaafu xaqiqatan illa min allah waaye wala yaxlif illa billah su fekkee da nga am tawxid dootoo waat ci kudul yàlla ci yàlla rek ngay waat waat ci kudul yàlla bokkaale la ak ku mën doon même bu dee muhammad soo nee maa ngi giñ ci yonent bi bokkaale nga génn nga ci lislaam man kaana haalifan falyahlif billah aw li yasmut kuy giñ giñal ci yàlla te noppi yonent bi dane umar ibnul xattaab yaa umar man kaana haalifan falyahlif billah aw li yasmut kuy giñ na giñ ci yàlla te noppi yonent bi ne man halafa bi gayrillahi faqad ashraka wa kafar ku giñ ci kudul yàlla weddi nga yàlla waaye bokkaale nga génn nga ci lislaam léegi nag tey Sénégal soo nee bu leen giñ ci kudul yàlla nga gis benn waay bu réer benn waay bu xamul yàlla benn waay bu xamul lislaam benn waay bu fetteerlu daan ne maa giñ maa wax nangam fekk ndeysaan wa maa yadurruuna illa anfusahum wa maa yash'uruun seen bopp rek la ñuy lor loolu ñu keneen ku dul seen bopp jullit suñ la waxee sharia islam bëggul nangam dalaa war a bàyyi yonent bi dafa fekk benn waay ci marché bi waa ji takk lam lamu or yonent bi waaxu ba ci waa ji daal di jàpp ci loxo bi tey bu doon kenn ci ñun da ngay romb waa ji mu romb la bu dee ku baax nag mooy ñëw sax ne ko sëriñ bi ah dëgg-dëgg day islam day tere góor gu takk or waaye yonent bi waxu ci loolu de dafa waaxu ba fekk waa ji fi mu taxaw mu xëcc lam bi ba loxo waa ji dereetal mu sànni lam bi ci suuf waa ji xool yonent bi yonent bi ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan boo faatoo lam bi nekk sa loxo doo texe mukk doo texe waa ji yonent bi dem nit ñi ne waa ji yonent bi dem na jëlaatal salam takk waa ji ne yonent bi du tekk xalu safara sama loxo ma koy takkaat yonent bi du tekk safara sama loxo ma koy takkaat ñun ñun fii ñaata yoon la ñuy giñ ci ku dul yàlla ñenn ñi ci ay geño ay geño la ñuy giñ geño sama geño baay lan mooy geño geño mooy lan ah ñenn ñi ci meen ci ay meen la ñuy giñ ñenn ñi ci askan ñenn ñi sama bakkanu doom ñenn ñi ci ay dëkk la ñuy giñ ñenn ñi ci ay barab ñenn ñi ci ay nit giñ ci kudul yàlla kéeféer la waat ci kudul yàlla kufru la ba pare xuruju minal milla la génn ci lislaam la lan moo tax ci lislaam dafa am ñeenti nit ñu ñuy tuddee al abadala seen tur mooy abdullah ñi jàng xam nañ li may wax fi mu nekk nii ku jàngul bokkoo masala mii may wax ku jàngul bokkoo borom téere yi laay waxal dafa am ñeenti nit ñu ñuy tuddee al abadala kenn ki mooy abdallah ibnu mas'ud abdallah ibnu abbas abdallah ibnu omar abdallah abdallah abdallah ibnu amar ibnu amar gis nga moo tax ma di ku jàngul bokkoo ñoom ñeent xam nga lu ñu wax ñoo raw ci lislaam ñoom ñeent ñu ne soo waatee ci kudul yàlla génn nga ci lislaam ñu ne giñ ci yàlla fen moo gën nga giñ ci nit wax dëgg ñoom ñeent ñoo wax lii nga giñ ci yàlla nga fen nga ni billahi wallahi wa taalahi ñuy xool fekk ay fen la moo gën nga ni barke diw ñu xool muy dëgg ñu ne lu tax ngeen wax loolu ñu ne boo giñee ci yàlla nga fen yàlla dina la baal mais boo giñee ci nit nga wax dëgg bokkaale nga yàlla du baale bokkaale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaar wa ma li zalimina min ansaar lan mooy dalil bi yàlla ne damay baale bàkkaar yëpp ba mu des bokkaale inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika fen ma duna zalika la shirk yàlla du ko baale yàlla du baale bokkaale ku bokkaale ba dee yàlla du la baal safara nga jëm direct ku ko weddi nag bokkaaleel de bul bàyyi de bokkaaleel ba dee ku weddi li may wax du question nga ni xolal kii li muy wax gëmuma ci dërëm xam nga lan la dimbali ma rek takkal weñ ba dee delluwaat ci nit ba dee takkal béjjën ba dee demal nga tuuroo deret demal nga takk ay bant takkal ay der takkal ay xaaw takkal petaaw ba malakal mawti jël si la ba ñu dugal la ci morgue bi sang la ba sang la jël la yóbbu la ba ci armeel yi ñu gas ba mu xóot ñu dugal la wàcce suuf si nit ñi ñibbi yàlla dikk daan ne tarakuka wa dafa nuuk wa fi turaabi dafa nuuk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu allazi la amut sa mbir leer bokkaale baaxul mbokk yi ab julit du waat ci kudul yàlla beneen wala yatahakkamu illa shar'illah doo atte woo lu dul l'islam waa Sénégal fan ngeen toll atte woo islam atte atte tawxid la ñun lan la ñuy atte woo tey da ngay dégg ñu ne Sénégal état laïque la kenn du fi attewoo sharia ndeysaan benn mirage bu ma fekkee semaine bi góor gi am ñaari jabar mais benn kenn ko ténj loolu mooy benn jabar bi balaa muy faatu da ko fase woon ñaari jabar la am kenn moo ko ténj kon fase na kenn ki ñu ñëw toog kon kenn ki mooy doon mooy ki ko ténj mooy doon ñu wax doom yi wax ndaw si koy ténj rek ci biir mbooloo mi am ku ne ah doom yi des na de imaam mu ne ah mu ne doom yi des na imaam ne ah doom yi ni mu dese xanaa du kii yow ñetti doom nga am mu ne waaw mu ne yow xanaa du fukki doom ak benn nga am mu ne waaw mu ne ngeen ne des na ñu ne waaw dafa am ku juddu woon te judduwul ci sëy benn waaye ne kooku du doon imaam bi ne day doon kenn du ma miraas loo miraas moo xam ne ëllëg dañ may yóbbu tribunal mu ne ma oustaz ma ne ko sama yoon nekku ci man kay bul ma ko seedaloo mukk yow yaa jël responsabilité ne day doon man sama yoon nekku ci mu ne non islam état laïque fii état laïque la Sénégal état laïque la kii fi kenn attewu fi charia waaw kon nag kenn attewu fi charia waruñu woon wax dañuy miraas dañoo waroon wax dañuy séddale ah xam nga nit ñi erreur yooyu la ñuy def dañuy gis ku ne dañuy ngénte ñu ne waaw dañuy ngénte kay ñu woo imam imam ñëw jël xale ne pare musique bi commencé waaw léegi kay ngénte du leen islam musique bi di wan moo ko fi indi est-ce que islam ne bu ñu ngénte nan musique dañuy takk sëy ñu ne waaw bismillah ngoon ñu ñëw imaam dañuy takk ñaar ki ana ñuy ñaan ñu ne ñu ngi nii ana ki maye ñu ngi nii ñu pare ndaw si sol yére bu weex tal sol robe buy direeku ci suuf ñu takkal ko ay fleur ci bopp bi ñu jël benn oto takkal koy fleur fii fii fii fan lañ jëm caserne est-ce que loolu islam la kon kay ñun dañuy war a wax dañuy xew suñuy xew ñu bàyyi l'islam fële mu toog afa tuminuuna bi baadil kitab wa takfuruuna bi baad fa ma jazaau man yafalu zalika minkum ndax am na ku ma mun a eggalil aaya bi fa ma jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayati dunya wa yawma alqiyamati yuradduuna ila ashaddi al azab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun yàlla ne da ngeen a bëgg a jël sama diina ji xaaj xaaj ko ñaar li leen neex ngeen def li leen naqari ngeen sànni ko fële buñ ne koor jot nañu ne wu ulcère feebar malade diabète chronique buñ ne koor ñëw na sax tokkati segari di chronique sax daan na ñun mënuñu woor dama chronique mënumaa woor suñ ne suba la tabaski ñu ne way ba ma dem dara liggéey li neex ngeen jël li leen naqari ngeen teg yàlla nee na noonu ngeen bëgg a dundee ak man gëm li bàyyi bi xam ngeen lan mooy fayu ñiy diviser diine ji en deux def li la neex sànni leen xam ngeen luy fayu ñooñu mu ne illa xisun fi lxayaati dunia lu dul torox ci àdduna alaxira ma yóbbu leen saxara islam kenn du ko diviser lépp ngay jël yaa ayuha allazina amanu udxulu fi silmi kaffa yéen ñi gëm yàlla diine ji dugg leen ci lépp da ngay jël lépp maa nga bàyyi yàlla waxul fenn def leen lii bàyyi lii loolu moo ñu sonal fi mu nekk nii kuy ngénte da ngay xaaj ngénte li ñaari xaaj 7 heures ba 9 heures yàlla moo ko moom. après sax gis nga gars yi dañ naan ilimaan jërëjëf jarul ngeen di ñëw bu ngeen toog jàkka ja dinañ leen indi seen añ bu leen ñëw de gis nga wala imaam kenn du leen wax loolu imaam bu leen ñëw de imaam waxal ak gaa jumaa ji dinañ leen indil añ mooy bu ngeen fi ñëwaatee lu ngeen lu ngeen fi gis lu leen naqari yéen a ko def nag ndax waxoon nañ leen toog leen bu leen mbokk yi dañ leen ragal yàlla ñun ay jullit lañ laxdari bu ndaw bi ñu jàng Sénégal lan la wax wala yahillu lahu an yafala filan hatta yaalam hukmallahi fihi yow jullit amoo droit def lenn lu nga wax lu yàlla wax sooy ngénte da nga naan yàlla lan la wax naa ngénte gis nga moo tax boo amee tawxiid da ngay ngéntee ni yàlla bëgg sa yoon ci ku la mere mais da ngay gis saa yi kenn ñëw ne ma non sama ngénte la kenn du fi musique nga dégg jabar ci wallahi la asim bu ñu ngéntewul ma ñibbi ñibbi nga gis yaay di ñëw wax na dëgg ndax ay morom rek lan fiy teral kon dañuy ngénte ñuy musique yàlla nag ndeysaan bu ñu am baay baayu séeréer nag day ñëw ne non il paraît xam nga foo nga bàyyi rek c'est que xam nga ah ndeysaan la yal nañu yàlla dafa sutura dañu bëgg a nekk ay jullit ba pare yor ay jikko yahut ak ay jikko nasaraan jullit mënul yor yeneen jikko lu dul l'islam sooy ngénte nga jël huit heures une heure de temps nga ni yàlla une heure de temps yàlla bi ma ko moom mariage bi mariage bi xam nga lan la ci yàlla yàq ji kese indi nañ goro bi indi nañ can bi day ñaan anam mu ne maa ngi nii kii may anam maa ngi ñu ne bismillah gis nga bu ñu pare yàlla amul ci place caserne lañ jëm caserne Samba Diéry Diallo wala ñu dem fan CDEPS wala ñu dem mairie ba loolu mooy l'islam fan ngeen jàng loolu dem nag waa ji sol tout noir ndaw si sol tout blanc ñu jël bàgg nag bàgg ne dañuy solalante nag di toppandoo nasaraan yi wala du loolu la ñuy def wala loolu dafa ñu ko gaayo am na fi wala amu fi waaw am na fi waaw loolu islam la dañ góorgóorlu jullit mooy kuy def l'islam yépp ku bàyyi lislaam wala nga bàyyi ci genn wàll yow sa njullit wérul sa njullit yàlla du ko nam bil asila aywa bismillah ya isa sallay naan isa sallay isa sallay toujours isan maa fi muskil aywa kon comme ñun insha allah dañ ñëw woon dix heures mooy conférence bi dix heures man Grand Yoff la ma fekk ñëw naa ba bi ci baas bi fekk ma fi kenn yàlla def na ma dem parce que dama war a tafsir trois heures léegi ñu ñu ne nañ arrêté conférence bi une heure trente ndax deux heures mun naa fekk fi may tafsiré ndax trois heures ba après damay tafsir léegi incha allah ñu yemale ci waxtaan bi ñu def li ci des question yi li ma doon wax ni ci wàllu tawxiid wala question boo xam ne xam naa ko incha allah su ma ko nit laajee mu fanaan ci sama bopp bi ma wax ko su ma ko xamul imaam yaa ngi ni ak sëriñ moo xaw ma ko ñoom ñu tontu bismillah